coalition aaju na nganaay nganaay loolu nag du lenn lu dul militant ak sympathisant maanaam ay farando loolu firndewu na tey jeunesse bi nee nañu kan ngeen bëgg ñu ne El Hadji Abdou Aziz Ndiaye bëgg kan moo gën ci Mbacké ñu ne El Hadji Abdou Aziz moo fi génn loolu firndewu na firndewu na ci mandargaaw candidature El Hadji Abdou Aziz Ndiaye gis nañ fii ay mandarga yoo xamante ne ay picc lañu mandarga picc nag olof Ndiaye dafa ne ab picc buy naaw ay du xam di ruus dalam du mun a sori waaw ndax xam ngeen ñay ñay du boromu yëkk gis nañ fi candidat yoo xamante ne seen logo yëkk la yaakaar naa ne tànku ñay xëjul ci yëkk waaw dégg nañ fi xarnu bi waaw xarnu bi ñëpp ko moom xarnu xarnu ñëpp la xarnu boobu nag méngale nañ ko ak ndoxu Mbacké ma ne nay leer le candidat idéal c'est votre choix le libéral et démocrate le candidat El Hadji Abdou Aziz Ndiaye dafa am loo xamante ne lu ne fa nga kenn du ko jeex. su nekk soo xewle yaa ngi koy gis soo soxlaa mu ñëw taxawu la foo mën a nekk mu ne fa ak yow kooku bu la wooyee ci boppam war ngaa ñëw wuy si ko parce que koo xamante ne bii chaque jour boo ko soxlaa boo ko wooyee téléphone sax doo ko gis boo ko soxlaa doo ko gis fen ki nga xam ne saa soo gesoo gis ko sawet wet kooku bu la wooyee ne su ma jotee dëkk bi dinaa ko defar biir na ne kon bu jotee dëkk bi dina ko defar. kon nag xale yi da ngeen ke fonk seen carte d'identité yii xam ne amuleen lu may mbàkke képp ku leen di defarloo mbàkke kooku ngeen ànd ak moom ku leen nax nag ngeen ba fa dem feseet keneen parce que dëkk bi dañ ko war a defar te ko war defar mooy ki dëkk ci dëkk bi xam dëkk bi di ànd ak waa dëkk bi kon Alaaji Abdou Aziz dafa xam dëkk bi di waa dëkk bi xam naqaru dëkk bu baax a baax a baax moo jóg moo tax mu jóg laxasu di laaj dëkk bi ngir defar dëkk bi bañ nañ ko dañoo bindu weer di fay mbalit dañoo bindu sareet mu di ñu jël si suñu mbalit ya te lool lépp ah, maire bi mënoon na koo def te defu ko léegi nag dañoo bëgg koo xam ne nii bu ko yoree loola lépp wàcc ñu te Abdou Aziz mi bu ko yoree danañu wàcc loolu moom xam nañ ko bu soobee yàlla su ko yoree danañu wàcc ah ma bëgg na ngeen góorgóorlu yor seen carte yii bu bis baa ngeen teel a dem teel a wate mu gañe toog ci bi luñ bëgg ñu am ko su boobaa du ngeen ko réccu Aziz mi dara taxul ñuy wax mais woon na Serigne Touba Mbacké kum ci romb ci ñun kum ci romb da koy nuyu ma ne bu ma rombee ak ngotoom bii day taxaw woon na Serigne Touba taxaw lay def ñëw nuyu si ma te loolu la dama bëgg ñun waa Mbacké ñu déglu te xool te xam ne Aziz mi même bu nekkul politique nekkul dara daf ñuy jàppale am déet wax ñun sëni Mbacke Aziz jàppal nañu wala jàppale wuñu kon boog buñ soxot Aziz dañuy jox te duñ ko laaj te luñ ko laaj du ko waaj loolu mi ci Aziz te xam dañ koo bëgg loolu kon nag ñun amaana ñu fi jot aw ñëpp benn jeune bu taxaw ne ñu fi jot aw defal nañ ko dara amul Aziz nag du politique du dara mais dafa sonn ci jeunes yi. te moom moo fi nekk il est le candidat sûr qui rassure. suñu koñ bi nag gis ngeen ni mel fii dara amu fi ki fi nekk ak euh, ak ki ki ki fi précédé yëpp ñoo fi am defuñ fi dara te da doy am yaakaar ci El Hadj Abdou Aziz Ndiaye euh, gis nii lépp muy lamp moom yi moo fi def keneen defu ko fi ñun François wax na ko léegi le directeur di campagne de El Hadj Abdou nee na ñun amuñu ay programme yi ñuy wax programme programme ñun on a des projets phares ay projet phare la ñu yore yoo xam ne nañ ñu may dans deux jours danañ ko def ci ay livre tasaare ko ci dëkk bi yëpp ñëpp xam ko ñun bokk ñoom ñi nga xam ne dañuy wër rek di mbele mbele di wax ñun mbele mbele wuñu waxuñu li ñu wax dañ koo gëm nee naa El Hadj Abdoul Aziz la boo xam ne yéen yéenay buur yi man ñun maire lañ yoo xam ne ay jaam lañu ñun ñun ñooy seen i jaam du ñu ay buur ay jaam lañ yéen yéen ay buur yéen ay yéen ay tag yi yéen yéen ay kilifa yi nee naa ñun jël nañu buum def ko sunu baat takk ko ba mu dëgër jox leen ko foo jëm fa la ñu jëm fooleen jëmul jëluñu fa di di diiram ñu nekk ci intérêt Mbàkke luy doxal dëkk bi ci la ñuy wéy yéen te duñ leen wax mukk loo xam ne duñ ko def wóor naan danañ defar ay usine danañ defar ay tali danañ defar nangam di pel bell di wax ñun loolu dugguñu ci dañu bëgg le 3 le 23 janvier incha allah rabi avant midi ngeen tàggoo gars yi. waaw il y a 23 candidats je pèse mes mots sur ça il y a 23 candidats 12 candidats yëpp am na ñu ñu àndal ñun yéen àndal dama koy wax nit ñi di ree nee naa leen le 23 à midi boo leen ñëwee di jël bulletin yi ba àgg ci bulletin El Hadj Abdoulaye Ndiaye muy ñëw yi nga xam ne ñun rek ñoo fi yor yor ñëy. lem leen bulletin bi def ko addee Serigne Touba jàmm na ñooñu. ñu gagné jeex na mooy tey jeunesse bi ñoo aaye ñun li ñu fi dajale woon mooy pré campagne lañ nekk ñu ngi ci nan la ñuy débuté sunu campagne wax nañu ko jeunesse bi ñoo formé woon nan la ñuy defee sunuy campagne sunuy caravane nan lañ koy defee ci yiw ak njëkk ak teraanga nan la ñu defee sunuy kafe nan la ñuy defee sunuy meeting ci non violent lañ koy defee yi nga xam ne moom na xalif général des mourides wax ci porte parole jaara ko ci sëñ euh, Bass Abdou Khadre noonu la ñuy jëfee ñun ndigal la ñuy jëfee ñun ànduñu kenn ku di xëccoo tojuñu ay bopp gaañantewuñu ŋaayantewuñu waaye daal li ma leen di wax le 23 gars ñu ngi njëkk a jëkkal ñu ngi ci raay leen leen ñu daanu incha allah rabbi maa ngi sant ñëpp ku lim juum bëgguma lim di juum kontaan nañu xam nañ ne jël ngeen seen engagement incha allah xam nañ da ngeen ko jëfee la ca kanam raw ci ban maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp gis ngeen ko ñaay wi la ñëpp xam nañ ko asalaamaaleykum jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf merci la jeunesse merci la jeunesse merci la jeunesse encore